bismillahi irrahmani irrahimi wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama anuka ya muhiinu wa bika nastainu barkeb cheikh muhammadul fadilu déglu leen tey ma baakati mbaro yàlla may na ko laa sindanoro déglu leen tey ma baakati mbaro yàlla mi fale fal naa ko buuro moo aayata yoo may na ko rabbana ko dogal ca xaddiimi bil xaddiimi al bashiiri nasiiru lamu def ku ko bañ yaa di dafoo la mu haxiba mooy waxi buuru bur yàlla lu mu def ku ko bañ yaa di dafoo la mu haxiba mooy waxi buuru suñ fàllu jokku ca xalifatu manoo yeslu naa ca dollo bi ca biiru jokku na jekk naa jekki naa dootu man di wareelu bareeru jàll nan war ca gaal ga ca mbuuro nan ba ca waax ba ca mbuuro irkaboo gaayi nan ñaani paaso seexi faddilu gaal gaa ngi teeroo il ka boogaay nan ñaani paasoo Seexi Faadilu gaal gaa teeroo soobu nan sappe nan jàll nanoo gaaju nan ba ca géej gee mbuuroo Sëñ Fallu sëmbu nan sangu nan jàpp nanoo sugal na ca duus ya fa mbuuroo sant naa sant naa sedd naa xalifa maa yafal maa suuru jaaru naa jandi naa mandi naa daane naa faati njaay mee mbuuru bëmb naa bàkk naa sama mbaro làng naa maa ngi way sama géeru sëñ Fallou làgg na wàlli yoo na lang na dul ma wàlli ka juuru wàllu na wàlli na woote na na walla may kab ka buuru wàlli yaan seeni kër tëgguwuloo nan lambi yàlla di buuru siñ fàllu tawakkal naa la rabbina wasal naa bi seyxil kabiru ràgg naa wopp naa was fi nii nag farasa fi suduru sëriñ fàllu làmbi diina ji sàjj na mbakke mbaatew bu sooy jël sogi leen jàggi leen jógi leeno yàlla na ngeen daane mbëri yee ca biiru sëñ fàllu àdduna ki bakkan ñoo ak bànneex ak kuréy kéema fiiru alaaji falliloo baaxul ma leen daane loon bal ma weyoo di leen yaa di seyxul kabiiru sëriñ Falilu sama ndaama moo bari ndamoo ndaama bi bawal ak juuru alaaji Faliloo ndaama jaraway jara maa ko kañ bani kaju yori juuru ku ko bañ maa la bañ tëj sa bañoo ku ko mere te nga wey sigi cooru ku ko bañ boo demee ci bàmmeeru danga gis mu nakiir ak nakiiru ku ko bañ boo demee fa siraatu doo fa jàllu ndi doo am sufiiru ku ko bañ naari jël xaali danoo mbal de dal gis nga fi yaa sufiiru maa di xaadimu ahmadana maay géwal fa këram moo di géeru bamba naa bàkk naa sama mbaroog faayulun laawa yoon man maa ko wayoo maa ngi way sëriñ faliloog cheikh sëriñ Falilu xaadimul Mustafa maa ko wayoo maa ngi way sëriñ Falilook Seex Basiiro fiilu naa faale naa faddulu naa faddalalallaahu yàlla di buuro lii nga neel awakaa man yasa ko soob mooy xadiiro sëriñ falilu sibtu balla ma fii rufa nga yoo doomi baayu sëriñ balla jooro baayu mbeen sibtu maam astawaalo bu soo doomi maam jaara du bàcci njuuro mbër ma xuus na ca géej bambanaan na ca géej nil ko sukka teg tasxini moo ko wax man di nan kaasi buuro rembat nan fallax nan moo nu duyoo kaasi buur wuute naa kaasi beero bàyyi faatimatin maa ko fatu sama naar bi le dal na te wóoro baayu Cheikh Murtada la gërëmoo baayu may mun deesu ko jooro baayu muuminatin maa ko gëmoo ko gëm dal diggante nga buuro baayu aaminatin maa am ku ko am dootu xaaraani reero sëriñ Falilu baayu muslimatin maa ko musoo ko mus dolli suukara seero baayu mbeen baayu may muuna mi mooma may soxna yi denc na ba ca mbuuro baayu aayisatin maa ko xasoo googa géej dootu feer maa ngi fuuro mooma may ci yére maa solo donnu loona ma ab sabaduuru Cheikh Moussa ne moom la maam Cerno daa barkeeloo ngir kaat sol na bu Bamba siiru mooma yar mooma yor bul moroyo ku ma roy xam ni roy du fi piiru sëñ Fallu mooma def xarqu aadati yi summa jëm ma xaar ni ki buuro mooma def muxjisaati wayaam moo taxit sama way dem ba buuro baayu mbeen moo xaram sama way ba mu safoo moo taxit sama tur dem na biiro baayu mbeen moo ma def werakaanu këramoo moo taxit sama wax dem na buuru Sëriñ Fallu moo ma def werakaanu këramoo moo taxit sama wax dem ba wóoroo moo ma may fu ma jëm ma may moo taxit maay jigéen moo di góoru mooma fal ba ma siiw ba ca ndaro jàll wey ji waalo gilooro mooma may lii maam maa gërëmoo ku ko bañ nal ma jox may si booro kiilu naa kollu naa kollu naa alhamdulillahi hamdan kasiira bamba del si na tuuba la naa ani doom baatu xalwa jandeero sëriñ Faliloo mbër mi dem aka dem tay ba demoo marwataaki sawaaya kasiiro mbër mi moom mbakke moom daaru moomo jurbel ak jàkka ji yaa di buuro candingaan tasbital yaa manoox bàkk leen bàkkuraan bàkki woorook mbar mi moom xarnu beeg jàkka jee doon mutu baasu doon labbe soorook suñ fàllu yow samay gi sagan dul kaamoo bamba daalo ko am fiddu hoorook yaa nu yoo Moustapha Mujtaba yow nga xayru xubooro Sëñ Fallu yaa nu yoo ak Xomaro naan nga zam-zam defu xayru biiro baayu mbeen aj nga umra nga dem nga minano sanni jam reya jam nga basiiro war nga kaabatu xayril wara dalli woo yaa di abli bi dooro sëriñ fallu yaay wurusu tey ngalam duñ la raxoo waajalay saasalay saf ku looro wuute ngaak gaa doo përëmoo yaay dërëm wuute ngaak aw xandeero sëriñ Falliloo yaay sariif tey xali fay xadiim yaa demoon xaysara ak xusuuru aalimun waariun aafisuna yaa nu daana filaal weeru kooro lil wara baariun kammaraw yaa ko raw yaa di fooro baasilun waaqilun faddilun na kàmma gën yaa gën yaa di weeroo siñ fallu abidun xaasidun saajidun kàmma man yaa ko man yaa ko dóoru xaasiun qaadiun raakiun mum gilooro sayyidun maajidun waaxidun yaa fi dem weesu faas romb yaa yi maa wara yaa nu dayoo yaa nu mag yaa nu raw yaay kabiiro sëñ Fallu saabiqun saadiqun aasiqun fawqa ngay awliyaa fi duhooro kaafilun kaamilun yaa ko yaanu sudurandum ha samdu gooro qul wa maa aybuwa indahum xayru xawfin safiin basiiru say xawaare xajul ci wolof say maqaamaati jommal saqiiru baarakallaahu fi fadlinaa jàmmane xew yoroo jam jamooro yow sax ay gi amul ay wóoree guerre bi jeex marchandise dootu seero soxna Abu So laqi ndama moonu ñàkk ku dootu reero saafu nan soosu hibbu nan tabbu nan noo ko suuroo caafu nan soosu nan ceebu nanoo tibbu nan tabbu nan noo ko suuroo marhaban marhaban jël nga ndamoo masrixan maxriban yaa gi kuuru ngurgaru yi fi gën yaa fi gënoo yu bon yaa la bañ ay si laa taqaf bul ragal yaa fi manoo way borom bee ñuy fulooro maasi nen du fi roki daja doomi la maa ngi suuru ngelooro mandig leer wuute naag naan gaynde njaay wuute naag bukki njuura xarnu bi yaa fi gën yaa fi rawo baa mu mat wuute naag am suhuuru sëñ Fallu xarnu bii bastulam yaa ko fuloo fadlu na yaa mal yaay si xarnu bii sun jigéen ñaa ngi solo ay mbalang duñ xaro tey mu sooro sëñ Fallu xarnu bi yaa ko naatal bu wéra bex bexil yow sa ay geeko looro sëñ Fallu xarnu bi wate yi barbare tex texil teqi leen seeni jooro sandika koko gañ yaa ko gañoo yaanu dellooy daraak sabadooro kursu bi ka yaa korawo baayu yaay premier ba yaa yaay maa dal wara omatalo kusimaamal wara fi duhuru yaay maa mal wara omatalo kusimaamal wara fi nushuru nit ku ñuul ak weex nangu nanoo ñii di way ñaa di way yaa di buuroo suñ fàllu wa jox sa baay leenu bewoo war nanoo sant tey xeeñ sa mbuuroo rabbi rabbi leen sajji leenu suur bare teqi leen seeni jooroo samsi tuubi leen mokki leenoo soqi soqi leen seeni jooro tey waaju way wayo ki ma wayo mbàkke ab dërëm lay wayal mbaate buuro sëñ fàllu ku la bañ yàlla na xëy ji si peñoo mbaa mu mun na kiir ak na kiiro bàyyi mbenn ku am yal na am ay dërëmoo am ngërëm am kërëm mel ni buuroo tarbiyaal tarxiyaal noo la gëmoo sañ nga noo jënde aayata fooroo yaaya yoo jëlaat di yaatina sañ nga noo ay fata fooroo yaanu moom ngir sa baay moonu mayoo sañ nga noo jënde ay sabadooro siñ fàllu diine ji yaa fi mag yaa fi rawa mbàkke dul fi topp shaqiiru mbàkke bañ koy xëccoo awalaan bala ay saa ko jël mooy kabiiru doomi bàmba yi tey yaa ci magoo walyandu fi yóbbuy ku biiroo kenn werenteerul ak sama mbëroo lang gaa ngi ni nuut yaay ka biiroo siñ fallu lambi diine ji tey yaa ko tool bi yaay jëwriñam tee nga buuroo gaa yi lay kontorak la bañoo maa la bañ nañ la bañ duñ xadiiroo parti beeg bandi lépp a yàlla noppi na biti ki biirab lum defar yàqkat dul ko fajo daane mag daanu xaj na ca biirab masjidun jaamiun raafiun no kaabatallaayi tuuba ko fooro bambane su ko nit tabaxuloon ay malaayika ñëw di subuuru bil aminil aminil aminil moo di siinub antal paranooro rabbana innana nangu nano ablana bil munafi duhooro suñ Fallu yaay donay kay donay Mustafa màggalal kabaral woo sa buuroo yal na jàkka jiimat ba nu tëjoo danga def ilimaan yaay kabiiroo yal na say doomi baay yépp saax fal tabax seeni kër muy xusooroo yal na fan wii di wey may weyoo ku la xaar yal na xat di xubóoro lépp yal na am ci sa ay gi nga ànd ba basiiro yal na doomi sëriñ bàmba yi yàgga doon nante mbooti du xooro yàggal naa yàlla naa yàgga way sama mbër maay géwal moo di géero yàlla naa yàgga ba kimbarama ndax mu may maari dan wa tabuuru léebu naa say ngorong maa ko yoru may sa géy baara géy njambi nduuru sëriñ fàllu fental naa baru bi sama mbaro jommal naa gaaya joor séeri biiru noppi naa xan mu naa sama wayoo yandi gaana ngi nii yorugu leeroo yegg nan yàgg nan yeggal nanoo julli nan ci rasuulin kabiiroo salliyan salliman sarmadaa rabbanaa ci basiirin nasiiroo wardaan seyxina xuddina baayu fadiluna ak bashiru tanga may soxna may ngan ji mayoo te defal koy ngërëm fal ko buuroo te nga may li xadiim lil xadiimi njàmme ka gennu góoroo